asalaamaaleykum cher internet waa Dak Médina ñoo ñëw seet si sunu xarit suñu doomu ndey Alla Bombay. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen euh, jox seen wàccuwaay euh, di leen kontaane bu baax a baax ñu ngi leen di ziar nag bu baax di gërëm nag suñu mbokk yi nga xam ne ñooy. Euh, suñu xarit yi nga xam ne ñooy jógee Médina ñëw ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen kontaane di leen jox seen wàccuwaay bu baax. bu ñu waxee coronavirus yomb na yomb naa sensibiliser yombul sensibiliser c'est-à-dire que nit ñi parce que loo xam ne tey jii dafa Chine la jóge woon ñëpp foog ni fa lay yem muy law di law di ba wër àddina donc defe naa ni ku ku ñe ku kuy laam-laamee ni amul sax dama seet dama yaakaar doo seetaan télé man li may ñaax ñi ñi mooy di wax ne ma fait feebar bi am na mooy que nañuy moytu rek def moo euh, distance barrière yi aussi tamit gën a yokk cet gi te ñun li ñu yàq mooy ñun Sénégal dañu dañu dëgër bopp dañu dëgër bopp parce que xam nga bu ñu la nee takkal sa masque. gel antiseptique yi nañ koy jënd seerul 750 lay jar pharmacie boo dem dañ la koy jaay masque yi tamit noonu ah fi mu ne masque yaa ngi ñu ngi jaay masque yi ëpp partout. boo fekkee amoo gel nga jël saabo bi maanaam di ko di ko raxasoo sooy dem sooy nga yóbbu saabu eau de Javel tamit na nga na nga wutaal tamit eau de Javel te di wax ñi ñi ne nag dëggantaan feebar bi am na. que nañu moytu bu baax a baax a baax a baax feebar bi am na parce que dèjà boo gisee a a cinq jours ci ginnaaw manam corona bi dafa dafa deuxième vague. dafa deuxième vague donc il faut que nous ñi nit ñi moytu nañuy faratal tak masque yi te ñuy moytu bu baax baax tay raxasu nak mëno wax Dakar te waxu Medina donc tay buñ né buñ né buñ né ay jeune Medina ay doomu Medina ay xalé eh, mais su ngeen défé ben coalition manam bokku ndey bokku baay manam photo photographie bokku ndey bokku lolu lolu nit ñi duñ rafetlu ko rafetlu ko eh, ku ci mu que ça soit ku dëkk Médina ça soit koo xam tamit dëkkul Médina mais mais mais toujours rek nit ñi ku ci nekk ci yeen day gis bopam ci li nga xam ne moom mooy mooy mooy mooy mooy initiation bi ngeen def pour photographe nekk nekk benn bokk ndey bokk baay ye naya ceenele jo dak Medina in kaname dak war warma cataw ke ab sabloog dak Medina ko teekee